Bon, vas-y. On Ah, ok. Euh, merci. Donc, je, démarre avec euh, euh, cher Ousmane. Wa, xam nga Bougan man dama il est victime de sa propre personne. xam nga que Bougan gendarmerie dako de façon je ko jappé man dama ne sauver. Mhm. ah oui wa xam nga li ma sauver nit la koo xam da da barrière gendarmerie pour des raisons de sécurité liées à la sécurité du président. Mm-hmm. nga da ngay barrière bi mm-hmm. sax ci mm-hmm. wax bi le président yaa bàkkeel kenn du ko du xam président de la république njàpp dafa périmètre de sécurité. oui. boo xam ne dara waru ko violer.

ñu quarantaine waa Gorée. Bush ñëw na fii ay ministre Ablaye Wade di dugg aéroport ñu di leen visiter te ministre de souveraineté. wala ñu désarmé woon sécurité bi. dañ désarmé waa GIGN waaw loolu juróom incident ñu jàttandee sànn. on les avait désarmés. il avait refusé. yaa ngi comprendre. ah oui ah oui il avait refusé. waaw agent GIGN yëpp yoroon sécurité waat dañ leen désarmé woon. Hmm. périmètre de sécurité présent. mun na dem ba ne ñu ne président mi ngi fii Ngor mais avion dootul survolé Ngor xam nga ñuy suuf la ñuy wax waaye aérien sax mën naa ne donc le le président de la république mu ñëw Bakel. Bakel boo ko doon catalogué ci carte de sécurité y a une zone orange. du zone rouge du zone vert zone orange. parce que dafa nekk ci frontière réew moo xam état bi fa contrôlé wul quarante soixante pour euh, li nga territoire nekk trop les xoolee dëkk yi fa nekk Sénégal da ko des pays comme Mauritanie Mali une zone boo zone à danger zone à risque la bu inondation amee foofu contrôle yu bëri dañ na intrusion mun du moment que intrusion est na rek Bakel zone de sécurité c'est-à-dire foog ñu savoir que bi président di dem Bakel Bakel n'est plus considéré comme zone de sécurité pour le président moo tax nga gis garde-corps yi wër changer son accoutrement changer seen armement mm-hmm. yor ay fusil d'assaut sol ay gilets tactique loolu foko gis moy président zone bi non seulement zone à risque la ci bu zone à risque la yow bul dugg vous avez un convoi 13 4-4 banalisé xamul lu nekk ci bu bu doon benen réew la ñi ma sax dañ leen di japp man moma jaaxal li tax ñu japp ko mom kessé bu ko bu doon états il pas seul. gis nga bu doon états la mm-hmm. dañ leen di même sa sécurité. ñi convoi ak dañ leen di léegi ay hypocrite di wër plateau yi naan le président est à Bakel kon doo dugg Bakel Thierno Bocoum naan kon ñun bu ñu nee fi ñu ne président ngi Dakar dañuy dugg Dakar par force ku la tere dugg dakaar hmm. ba ngay xaacu naan damay dugg non man ay reetaan la ma def dañuy dugg da Thierno ku la tere dugg Dakar waaw yow ku la tere dugg Dakar. kenen ki ñeme yalla ki naan président ñemewul won wacc suuf hélicoptère la yoroon de euh, avion amna na machine café saa ragalal yalla avion militaire le président bi muy survolé Bakel amul confort bobu ñëpp gis nañ vidéo c'est-à-dire une opposition très médiocre ñun ñun moy suñu problème quoi donc mm-hmm. Bougane Gueye Dany li mu def dafa mettre en danger sécurité président de la République mettre en danger sécurité mom ci bopam ak ñëma ma saay na yoon topp yoon teg ko daan yin ko war a teg mhm. Bougane nee na Sonko ko jàngal déglul de nee na mhm. ci tànki Sonko lay dox waaye mhm. leçon bi moo xul moom ci tànku jàmbur rek lay dox Sonko tànku Macky la nekkoon léegi muy tànku Sonko Sonko mësul xëccoog gendarme mësul xëccoog policier daa génn këram fii na day julli ji luñ ko wax dañ laa barricade nu mu def dafa dëppaat génn fii ñu barricadé ko cinquante jours génn bis du yóbbu doomam muy jàngi ñu ne dafa taxaw bis di circuler bëgg permanence ñu ne ko dem mhm. duñ la génne fu Sonko ñëwee ñu ne ko doo dem muy xeex ak nit ñi mhm. ah leçon bi nga surtout def wala la génn région bi Macky zone bi ba Macky dem c'est un irresponsable mhm.

sur une cellule VIP on dañ 48 personnes non c'est Tamba. ah Tamba donc dañ bëgg ñu 48 personnes génne leen ci cellule bi personnes leen ci 48 personnes ndax bugaan. mais euh, non déglu non déglu non rek euh, cellule mom kenn. dañ ko condamné ba mm. condamné guñ ko On dañ ko condamné transféré ko limi wax ñun ko fi lañ dajji di toj gémmiñu jigéen bi leen tijjuloo ñun loolu fii lañ fekk baat li li muy wax na ci bàyyi xel ñun dem fii lañ fekk nag. Mm. bi ñu koy yóbbu tàmb Kédougou dañ ko ne ba pare. Mm. bu gaan condamné guñ ko. te flagrant waaw te flagrant la bis bu ñu ko condamné woon duñ ko ba ci cellule 48 personnes. Mm-hmm. mais bëgg jël 48 personnes dajale leen paquetage ak yeneen 48 personnes ndax Bougane dégg naa nag mi ngi grève de la faim. Mm. li ma koy wax mooy grand alimentaire 47 degré 45 boo lekkul naanu da ngay dee rek. non grève de la faim da ngay naan. dara du xew erreur boobu mais mm. xam nga Bougane mu ngi grève xolal. kaas tojut. Uh-huh. verre tojut. nit marchul sa télé sax marchul. bougan mhm. alimente-toi da grand dara du xew politique yi dañuy continuer activité. c'est vrai. ana da nga leen dégg ana on waxoon naa ko ko newoon nga yaakaar dama laaj ko sunko ba muy toj oto bi ñoom laa noonu ñii gunge kenn na jéem a lekk te a ci te bu génnee na toog waxtaan ak boppam bugaan dafa war a toog janoog miroir waxtaan ak boppam wala dem ba catu géej. xam nga des def ko clairon. dem ba catu géej fay sa oto mm. toog waxtaanaat ak sa bopp. sincèrement il mm. s'expose. Mm. il met sa vie en danger te jaru ko. Mm-hmm. taxul moom aura politique taxul moom buzz. jàppoon ne bu génnee dina gën a radicaliser wala. mais man coalition boobu. au-delà de Bougane moo ma jaaxal quoi. kan moo ci am cette discipline man Anta Babacar laa yërëm. mu que parmi ces gens-là Bac de tirer fii Bougane di tirer fële euh, Pape di créer y' a pas de responsable moo tax waa ils se sont fait tout petits ils se gênent parce que dans un cadre comme ça xam nga ay kilifa xajuñ ci yooyu nga nga nga ay tu di am comportement chaleur vraiment cette coalition elle m'étonne quoi mm. moo élection yi vraiment amul enjeu. moo tax président ñoom lay ah. waxal. Mhm. parce que clairement, mu ci doon wax sànq. attention te gis nga bi ko mhm. Diomaye di wax gis nga ni mu leen arto mhm. munuñ jëm ci ay élection ay nit jël ay sensibilité di campagne. campagner. ay mbirum diine tarixa ethnique, kii bu doxee jëm diine kee dox jëm ci tarixa attention. ku fi def nako sul sur Youssou Ndour korona ku fi yëngu dañuy dal sa kaw point. ku fi yëngu nguur gi dal sa kaw. Diomaye nag à entendeur. Salut, prévenir Nalet. Continuez à faire des choses. Continuez à faire des choses.